dugg ci li nga xam te moom moo nekk li xew ca Ziguinchor mm. euh, barki démb euh, wala sax démb dañuy wax ci li nga xam te nii moom moo soxal nag euh, ñaari sortie yenn ci leader ci wàllu politique yu àndoon ak le président Macky Sall je prends l'exemple de Aly Ngouille Ndiaye mm. l'exemple de Boun Abdallah Dionne gis nga sortie mu def keroog ca TFM mm. mu mel ni ñu bëri dañu jàppoon ni seeni Euh, divergence affaire de sóobantal fuural la rek mais. Hmm. Euh, bi bi nga déggee seen i discours ñoom ñaar ñëpp est ce que jàppoon exactement euh, yaa am na benn certaine frustration bu am si diggante le président Macky Sall ak ay ancien allié non ko defee baaxul quoi parce que mënuñu mënuñu à quelques encablures. Hmm. d'une présidentielle. en hmm. pleine euh, saison des pluies. Hmm. nga bàyyi la secteur comment dirais encore de l' agriculture orphelin alors que techniquement ou bien euh, comment on appelle ça encore euh, l'importance voudrait que un ministre de l'agriculture euh, euh qu'il soit véritablement un ingénieur agronome e pas moins de quinze ans d'expérience yow nga dem sa yoon après nga bëgg wëlbatikuwaat nga ne yow bëgg nga sénégalais yi Euh, dont aussi tamit les agriculteurs loolu moom bu ko agriculteurs yi nangoo loolu ñoom seen affaire la pour bun moom man bun dama yaakaar ne ci mission la nekk quoi Macky moo ko yónni ñuy jéem nax nit ñi. ah bon franchement jéem a nax nit ñi muy théorie ay théorie yoo xamante ne bii ak aaya alxuraan yi ñu ko doon firee dara baaxu ci c'est ça la vérité quoi. ah bon non non très sincèrement bun joon. li wax da doon. non non watawaasaw bil xaq watawaasaw bi sabri watawaasaw bil xaq nañ waxante dëgg mais moom na wax réellement lan moo tax mu toog ba léegi nii nii nii na doo ko nekk candidat lan moo tax mu pare livre am ba pare suma ma juumalee ci ay sources yu authentiques yu ma am Macky sàll moo ko ne bàyyi ba nga doo génne livre bi loolu wax ko sénégalais yi. c'est ça ah la vérité. mais da nga ne c'est c'est c'est grave ah. non non c'est pas grave. ah si parce que. non non Abdallah kon il est en train de tromper a rien de grave. <laughs> fii lu grave mooy loo xamante ne da waxta da nga entorser ay règlement ak affaire yooyu man ay sources un journaliste c'est des sources un journaliste qui cesse d'avoir des sources. ok il n'est pas journaliste. waaw donc na wax sénégalais yi moom Macky Sall lan la ñu waxante quoi moo gën buñ joon ñi ànd ak moom ñëpp bennoo lañ bokk ay Habib ñaa yëpp sont de bennoo cest à mais aussi pourquoi les sénégalais taxaw fii. <laughs> sawaay bun jon c'est un des plans de Macky Sall c'est ça la vérité loolu amul moom weddi na ko sax ñi génnoon naan waaw mook Macky Sall dañoo xulo mu ne leen barke alxuraan loolu amul te man loolu laa mës a foofu man foofu laa mës a taxaw mais bi nga ko déggee Papa Ngagne quand même keroog vraiment Mansour non <laughs> ah mais euh, bu leen ñaar deuxième tour am de bu deuxième tour amee ñoom ñëpp il vont se coaliser contre le candidat le mieux placé de l'opposition man maa la ko wax bun jon il est trop discipliné pour s'opposer à Macky Sall Boun Dionne c'est un Baye Fall xoolal boo ko mënee comprendre mais dama xamul est-ce exemple boobu. Hmm. Euh, war naa ko wax quoi. Ah. mu ngi mel ni Serigne Touba ak Cheikh Ibrahima Fall. Macky Sall la digal non Macky Sall. Hmm. ak ak Boun la Serigne bi nañ bàyyi naxaate bi quoi yow tu penses que Boun Dionne peut venir avec des ruptures dans sa profession de foi il a cité Macky Sall comme ni ko président doon waxee xaw ma lan et et cetera non mais attends nañu bàyyi li ñuy def. Boun Dionne c'est un élément de Macky Sall Boun Dionne il membre de la Boun Dionne c'est un des candidats de l'APR c'est un des candidats de Benno Bokk Yaakaar cest à loolu mooy dëgg quoi. ñoom ñaata candidat lañ ñaata am. non bàyyil ba candidat yi génn da nga xam ne ñii dañ leen fayal caution. non ñi gën a siiw par exemple. non xam nga non non doo xamagum il faut nga bàyyi ba. Mame Boye Diao kan yow gëm nga ni Madické Niang 2019 mën na am parrainage fu Bougane mënul am parrainage yow gëm nga loolu Madické ñaa kan <laughs> non mais Sénégal Sénégal du réew sëñ bi dañuy ndax nit ñi quoi yow gëm nga Bougane Gueye Dany mënul am parrainage hmm. fu Madické Niang amee parrainage xam nga c'est là où c'est dangereux hmm. ce que je soupçonne d'ailleurs te noonu la noonu la war a demee dem sur le terrain épuiser l'ensemble du du, du, du du bassin des parrains mmh. d'une entité ça te permettra yow boo jëlee yow li nga soxla ba pare li des nga xool ñooy parrainé moo tax ñoom seen parrainage amul sax coow Madické Niang parrainage amul sax coow par Madické Niang fa la jëlee pare bunjon bunjon mais sous-estimé waaye mënu ko am sëriñ bi wala bu koy amit yaa ngi dégg am na ñoo xamante ne bii ëpp leen euh, représentativité war nañ ko mën a am loolu sama xel nangu ko c'est un défi à la raison donc buñ joon wax dëgg na yàlla ñun lay jéemal a mais man duma ci bokk. ba keroog may gis leneen. Hmm. il pare ne par le palais loolu laa jàpp loolu laa gëm. wax dëgg na yàlla. d'accord voilà. ñu daw nag dugg fële ca Ziguinchor waxtu ñu cëralee léegi mu jeex. Hmm. donc foofu la ñuy mujjee. wala sax bu ñu ko wax ci may ñu wax fële ca Palestine ak Israël mais euh, présentement ñu ñëw fële ca Ziguinchor euh, daan bi nga xam te nii euh, wala sax procès ba amoon foofee ca Ziguinchor gis nga ni Ousmane Sonko moo ca am ndam. Mm. ginnaaw bi nga xam te ni rajo woon nañ ko ci liste électorale yi ñu ñu mel ñu ko ko léegi bi mu amee am na toole bu mu jur ci actualité réew mi. yow ndax lu la bettoon la. non man moom bettu woon ni sawa si fay moom dina liir le droit man loolu parce que radiation bi man jàpp naa ne ni ñu ko defee waruñu ko defee noonu loolu wax naa ko jour bi nga xam ne on a démarré le retrait des parrain des fiches de parrainage. Mmh. donc le même jour man def naa sorti wax ko mais comme moom c'est une autorité assermentée. Hmm. wax na li mu jàng. léegi nag am na ñoo xamante ne gënalu leen voilà Sénégal Sénégal. boo bekkee ci benn camp bi am loo wax police wala magistrat loolu mën nañ la ko toreleel bu ko ñeneen ñi waxee dañ la naan vous avez jeté le discrédit sur la justice outrage à magistrat outrage a un agent dans l' exercice de ses fonctions taril la benn litaani boo xamante ni bii buñ la monté les dossiers yi bi bu la yàlla mooy ñaan dëgg ak dimbal moom di nga yàgg ci kaso bi loolu mooy li nga xam léegi nag ñoom ils vont se pourvoir man loolu dara beccu ma ci aussi tamit parce que bi gars yi di jubilé man ma essai dama cee bind na leen ils on dix jours yaa ngi dégg et loolu c'est de droit pour se pourvoir en cassation autrement dit c'est ni ñu koy waxatee à la cour suprême waaw hmm. ah, donc affaire bi match aller la woon léegi match retour bi euh, ils ont dix jours ça ne veut pas dire que ni ce sera le l'affaire c'était le 12 ou 13 le 22 non ils ont dix jours intervalle de dix jours donc mën nañ ko def euh, mardi mën nañ ko def mercredi d'autant plus que le même jour l'avocat judici l'agent judiciaire de l'État hmm. euh, donc euh, def na communiqué euh, communiqué bu am coow nag aussi hmm, waaw communiqué bu am coow bu tax ba waa union des magistrats génn génn def si dans le bureau exécutif hmm. xam nga donc ni ñu koy waxatee na le comportement agent agent judiciaire de l'État man hmm. dama bëggoon taxaw ci lan mooy agent judiciaire de l'État. Hmm. lan mooy agent judiciaire de l'État agent judiciaire de l'État d'abord. Hmm. mooy ki nga xamante ne bii. état bu nekkee débiteur wala créancier. moom moo koy tubayul maanaam moo koy taxawu. nit la koo xamante ne bii ca dëgg-dëgg laa wax bu dee dañuy def administration pure rek. publique. non dafa war a xam tous les arcanes de l'administration avec une parfaite maîtrise de l'administration publique c'est quelqu'un boo xam ni il doit être il doit euh, quelqu'un boo xam ne il est blanc euh, nu ñu koy waxatee waaye blanchi sous le harnais maanaam yàgg ci yëf yi ku mm. yàgg ci yëf yi la war a doon man mm. gis naa un ancien ministre nekk euh, nekk nuñ koy waxatee IGE inspecteur général de de l' état moom ci ay rêvam agent judiciaire de l' état la war euh, euh, moom rêvam loolu la woon maanaam warul sax kon loolu su ma la ko waxee mooy du temps de Diouf. ngi mhm. doon nekk agent judiciaire de l' état c' est presque buñ daan jigéen retraite maanaam yàgg ci administration. trente ans trente cinq ans xam administration. Mm. man jàpp ma ni ñenn ñi ñuy nommé du ma tudd tur nag quoi ñenn ñi ñuy nommé non jàpp ma loolu. non non non boobu keroog amul